yaa ngi ci biir Songuanté TV bu leen fàtte di aimer abonné ba noppi di activer cloche de notification bi dara dootu la ump ci réew mi ak ci bitim réew ak la télé du peuple Songuanté TV. KPay di transfert bi wóor ak Aquaterra ndox mi wóor te ñoo leen di may li ci yéenekaay yi ci wàllu làmb kii yi dal leen ak jàmm tey la alxames ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru octobre atum 2022 li gën a fes ci yéenekaay yi li ñu wax ci wàllu làmb ñu tàmbale ko ko sunu làmb mi xëy fësal ci xëtam mu njëkk nataalu Papa Sow ak ki nga xam ne moom mooy Siteu ci seen face à bu mujj bi nga xam ne doon na am fële ca 2STV combat bi nag juróom-benni fan ci weeru novembre la atum 2022 combat bi li ci des bareetul ñu ne Papa Sow moom dafa jàkkaarloo ki nga xamante ni moom mooy Siteu ne ko yow ci say franc laay jaar Siteu waatal ko ne ko Papa Sow yow doo am dara mbay njëng jàpp daal ne boobule komba xeex munu cee ñàkk ki nga xamante ni nii moom mooy Modou Anta sans frontière wax na ci combat bi nga xamante ni mooy dox ci diggante caatu waalo ak Karmu mu ne caatu waalo moom mooy Euh, favori ci boobu les combat Aïda Bouna Diop nag moom mooy njiitu Yomoussow production moom wax na lan moo tax ñoom ñu jël xaalis bu bari def ko ci li nga xamante ne nii moom mooy ci wàllu euh, làmb mbokk yi ba tey ci wàllu làmb record yéene kaay dafa xëy fësal ci xëtam bu njëkk euh, kii di Siteu euh, Siteu mi nga xamante ne nii bañ na ne du takk ngemb contre Papa Sow tambour majoram bi nga xamante ne nii moom mooy jiili buñ ko suspendre ki nga xamante ne nii mooy tambour majoram di jiili sec buñ ko suspendre kii di Papa Sow du gis ku mu bëreel loolu la Siteu wax waaye ba tey nag mesure yi nga xamante ne nii moom la euh, CNG jël ngir euh, lii di face à face yi au-delà de une heure du matin benn face à face dootul amati mesure yooyu CNG moo ko jël Bira seen mu ngi ne fang ci xët mu njëkku record yéene kaay face à face euh, diggante Gris Bordeaux ak amaa Baldé le 8 novembre lay doon waaye euh, Gambu Gueye ak Tapha Mbeur def nañu ñoom it seen face à face mu nekkoon face à face bu tàng jër kii di Kalmu Ndour it ki ko doppee du kenn ko dul maar fa ko loolu moo gën a fes mbokk yi ci li yéene kaay wax ci wàllu làmb euh, taaxir lu leen neeskis ma faram fàcce mbokk yi dal nag jàmm ñu tàmbali ko ci face à bi nga xam ne doon na dox ci diggante Papa Sow ak Siteu fële ci 2S TV bañu ca pare nag Anta bu sunu làmb dafa laaj mbay Ngingue Mbaye Ngingue nag moom mooy coach bu Tapha mu ne ko fukki fan rek moo des ci diggante euh, Papa Sow ak euh, kii di Siteu combat bi am ñu jàpp leen nag juróom-benni fan la ci weeru novembre pronostic yi nag kenn ku ci nekk ngi wax waaye coach Tapha Tine di mbay Ngingue neena na euh, la boo xamante ne nii combat bu mag la yàlla moo xam kan lay jox jox ndam li waaye jàpp na ni daal xeex mënta ñàkk ci le komba ndax lu tax Papa Sow xeexkat la euh, Siteu Salika naka noonu waaye euh, kii di Mbaye Ngingue daf ci yokk ne Euh, ki nga xamante ne ni moom mooy Siteu moo xaw a am avantage lu tax ndax taay bi dina am nag problème centre de gravité bu ñu jàppante nag ki nga xamante ni mooy am avantage ci kàddu ko mbay ñi nga du kenn ku dul kii di Papa Sow waaye nag jàpp leen ni combat boo xamante ne combat bu neex la loolu la ñu mbay ñi nga wax ci biir euh, sunu làmb euh, bu nekkee ni nag dernière face à face bi nga xam ne doon na am ci semaine bi ñu génn combat bi nag juróom-benn fan la ci weeru novembre Papa Sow ak Siteu affiché nañu seen confiance bu mat sëkk Pape Demba Faye moo ko bind ci biir sunu làmb daal ne euh, ci face à bi daal dañu gis ni ñoom ñaar dañoo ñemente lool lool lool lool lool Papa Sow daal di xool sita te ne ko man ci say flanc laay jaar munoo fexe ba duma jaar ci say flanc mu neex la ak mu naqadi la euh, si te daal di ko tontu ci biir face à boobu ba pare ne ko yow daal euh, nekkal di wax rek bàyyi ma bàyyi la wax ji man ma jël jëf ji ndax bis bu ñu dajee man ak yow doo am dara loolu la si tontu ki nga nii moom mooy Papa Sow ci biir sunu làmb euh, dañoo yóbbu lii di làmb ja fële ci mbuur ñu def fa micro trottoir Ibou Bari bu mbuur moo laaj euh, ñi nga xamante ñoom ñooy journaliste yi nekk ci mbuur kenn ku ci nekk nag euh, joxe sa kaddu bu dee musa Diop journaliste Dunia Mbour wax na nee na Siteu mooy favori Njomba Ñang nekk animateur Mbour FM nee na avantage bi Papa Sow la Samba Ñebbe Ba nekk journaliste Sud Quotidien nee na cinquante sur cinquante la Cheikh Fall animateur Luxe FM ci Mbour nee lii di kurpeñ yi dana mel ni mbàccum gerte kii nga xam ne moom mooy Alioune Badara Ciss moom nag nee na Papa Sow joue gros loolu la suñu làmb tey def micro trottoir fële nga xamante ni nii moom mooy ca Mbour ñu wax ba tey mbokk yi ci wàllu làmb ñu wax ni Modou Anta sans frontière reporter nee na caat bu waalo moo nekk favori ci kanamu kii di Kalmu Ndour moom suñu làmb ñoo ko laaj ci xalima ak antesis mu wax loolu de Blondé Diop euh, bu Yamuso production nee na lan moo tax ñoom ñu investir xaalis bu bari ci wàllu làmb moom wax na ko moom membre influente la nag bu Yamuso production mu nekk structure boo xam ne ñi ngi ko créé woon 11 euh, novembre de Aïda Bodian dellusiwaat na nag ci journée yi nga xamante ni moom la ñu amal ak li ñu bëgg amal ci wàllu euh, làmb bu dee record yéene kaay mu ne Siteu dafa wax ni moom du bëre fekk tambour majorom bi nga xamante ni nii moom mooy jiili sekk te ñu suspendroon ko ñu fàtt ne que dafa xaañoon Papa Sow sabar ci li ñu wax waaye Siteu nee na tambour majoram bi moom mooy ñëw te caaxaanu ci bu Jili sekk ñëwul moom du takk ngemb ci biir record yenn kaay ba tey nee ñu Max Mbargane euh, bugul nekk magom xamoon naa ko waaye magom waxoon na ko la moom calmer na le jeu nee na euh, kii nga xamante ni nii moom mooy euh, Siteu dina bëre ci kaw loolu it euh, Bécaye mbay calmer le jeu di sàkku rek ñoom ñu bëre bëre bi euh, interdiction yi nga xamante ni jël nañ ko kii di président bu CNG wax na nag lu baree baree baree bare nee na léegi dootuñu nangu benn face à face di passer une heure du matin face à face bu ci door teel a jeex ndax bëggatuñu lenn loo xamante ne nii mooy indi jafe-jafe ci wàllu euh, lamb ji face à face Ama Baldé ak Gris Bordeaux wax naa leen ko ci njëlbeen bi juróom-ñetti fan ci weeru novembre la incha allahu rabi ci la ñuy amal boobule face à face waaye face à face bu tàngoon jër jër nag laa wax moo doon kon diggante gàmmu géy ak nga xamante ne ni moom mooy Tapha Mbeur kalmu nduur it euh, ñi nga xamante ñoom ñooy ay naatangoom domte nañ ko ci combat bi mu jëm ñu jeexale ak ci ginnaaw suñu làmb muy dernière face à euh, bi doon am ci 2 TV muy ci diggante Papa Sow ak kii di Siteu wane nañ nag plateau bi Papa Sow toog Siteu toog Anaconda it bu sàkk xam-xam ma nga ca Bécaye Mbaye ak doom ja Modou Mbaye ñi ngi leen wane ñoom it ñu yor seen téléphone ci loolu yépp nag kii di Mansour Ba nekk PDG Jambar Production it nataalam mu ngi ne fang ci ginnaaw sunu làmb mbokk yi lii moo gën a fes ci lii yéen kaay wax ci wàllu làmb eh, cant ak ngërëm ñeel na leen ñu ngi leen di ñaan ngeen di wéy di abonné ci Songuanté TV bu leen fàtte bés cloche de notification bi jàmm askanu sunu gaal borom lépp ak fépp ak suñu borom yàlla na defal ñëpp jàmm mbokk yi jërë ngeen jëf ba suba incha allahu rabbi Kpay di transfert bi woor ak Aquaterra ndox mi woor te leer ñoo leen may di ci yéenekaay yi ci wàllu làmb